mi lillaay fii niin ak daara yàllaaw sari bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sharika lawo wasi wa ma liwaat li fiika yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو internet Dakar Buzz ñu leen di di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu ngi fi nag ci Zambaaw ginnaaw bi ñu jotee ab xibaar ne na xale bu jigéen boo xam ne dafa réeroon ñu koy seet a ginnaaw ga nag la ay mbokkam jot ab xibaar boo xam ne rek dafa wax ne kooke dañu ko mujjee faat ni mbir yi demee ak waa kër gi ñu ko dundee ndax ci jamono ji ñu wax ak yéen yóbbu nañ ko rek ci dëkk bu sell boobu di Touba ngir rek daal di koy denc boromam ñu ñaan bu baax yàlla xale ko àjjana te fa mu jëm gënal ko fa mu jóge ñu nekk nag ak benn mbokkam fas yéene waxtaan waxtaan ak moom nan la yëgee rek mbir mi ah, soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. naka nga tudd. man soxna Ndiaye. lan nga bokk ak uh, Lobé mi ñàkk bakkanam. Lobé ñoo bokk benn baay benn papa man maay seen taawu papa. ba pare uh, mbir mi nan ngeen ko yëgee ak xibaar bi nan la dellusee ci yéen. man kay dañ ma ko doon nëbb sax ndax dafa nekkoon sama proche man maa ko yar xale yi man maa leen yar presque maa seen yaay ñoo maase man maa leen yar. lu bu xew man la ñuy wax mais affaire bi ma amee def fekk dama feebar lu mat 15 jours maa ngi nii tëdd feebar ñu dima ko nëbb ba de ci guddi parce que lundi la affaire bi am mu xëyee mardi ñoom ñuy def seeni démarche ba de ci guddi lañ ma woo sama kër wax ma ko ma daal di jog daw dem sama benn voisine boo xamante ne dafa ma ko mosoon dégg mu ne am na benn paa bu ne yëmbal buy feeñal ñu ñu réer ma dem fa expliqué mu ne ma bu ngeen xëyee na ngeen teel a dem yóbbu yéreem ma comme man ak yaayam dëkkuñu ma woowaat yaayam ne ko bu xëyee suba teel na nga dem yóbbu yéreem ñu xool ba xam man bi ma xëyee comme dama amoon rendez ci vaccination yi ma dem ay 14 heures laa dugg sama kër sangu julli bi ma añee ba pare nag la information bi egsi loolu daal laa ci am. kañ nga moom. moo jee gisanteeg moom nag xaw na yàgg tuuti ëpp na 15 jours mais maa moom déggante nañ dimanche ci ngoon ay 17h 18h. déggante nañ téléphone. am sama doom boo xamante ne bi mu juddoo moom sama kër la nekkoon man maa ko yar sama doom bu ñuy wax maam jaara bi mu juddoo moom laa ko féetale dafa fekk juste boobu mu ñëw ci man nekk xale mu féetale ko ak moom mu orange moo ne ko 10 après tabaski gi. mu woo ma nag di ma wax ne ma orange money naa ko 10 000 ma koy tooñ naan ko maa ngi moom ñoo bokk 10 000 yi ndax sama téléphone nga ko orange money ñuy waxtaan noonu ma dégg mu wax ma ne ko lan la mu ne ma ne dama fa am benn seexu moo xam benn frère am mu koy tooñ dama am benn seexu boo xamante ne li man daal la ko yàlla xiir pour mu sangu sax man maay wax pour mu sangu ñu waxtaan noonu draayante ma ne ko man sama feebar ba tey mu ne ma jógagoo ba ma ne ko mu ne ma dinaa fa ñëw ma ne ko waa baax na après ma paas sama borom kër ñu waxtaan noonu après ñu coupé waxtaan nañ lu presque la ëpp 30 minutes man moom ñuy wax téléphone dimanche lundi nekket affaire bi am na ñu ma koy nëbb. ba ma lundi la am. nee nañ xëy na lundi ba ay 13 am ku ko topp rek di ko woo ñëwal ñëwal xam nga comme moom ci pièce détachée lay yëngu dañuy dem ci conteneur yi di jënd xam nga ñoom ñu jëndkati conteneur yi def rek xam naa am ku ko woo na ko bagage am na mu naan ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw ba mujj gi mu ne ko xaaral sama cek-cek bi ñëw oto bee gaare moo ko moom yóbbul sax oto bi keroog cek-cek bee ko yóbbu ba nee nañ caare asile la ko wàcc caare asile la ko cek-cek bi wàcc. dafa boobu wala. non dese na maa leer nag wax dëgg yàlla nit day wax lu ko leer. waaw information yi ma jot rek laa lay jàllale. mais puisque yéen bokk nga ci nga xam ne mujj na waxtaan ak yéen waxu la problème bu mu am ak nit wala ñu ko doon menacé ak yooyu. non non non menacé bi moom eggul ci moom ndax moom gar gaynde la ku ko menacé ci wax ko ko mu dégg ko balaa nga dem mu faj ko moom ma garçon manqué la woon ku ko a la koy de travail am la ko daan summi ba samedi tenue banquière am yi photo ngeen gis noonu la mel. jàmbaar am jom am dignité am personalité lu mu mës a liggéey ay mbokkam a ko lekk tëneem boobu nga xam mësu koo summi lekku ci dara lépp ay mbokkam ku bëgg cheveux mu jëndal la kuy mu ngénteel la ku feebar mu yóbbu clinique faj la ku am soxla moo ca man man maa la wax loolu te bu lay may du la may ñaari junni du la may ñetti junni su la mayee minimum minimum cinquante mille jëm kaw la boo waxee mun a bàyyi yooyu man mi nga man maa ko yar nag mu judd sama kanam moom bisu tabaski lañ ko ngénte ma laax ngénteem man bisu tabaski maa togg laax yi togg añi bisu ngénteem tàggoo ma moom ba ni yaa ni ko yàlla jële day daan wax su ma joxee dara ma koy may may wax mu ne ma yow damaa war chaque mois ma fay la ndax ma jàngal jom yaa ma jàngal personnalité yaa ma jàngal liggéey seede yàlla. moom amul jëkkër amul doom. amul jëkk amul doom doxul sax ci ay farantu garçon manqué lañ ko naan wax liggéey rek la xam liggéey kese la xam daan dooleem kese la xam lu mu am jox ko ay mbokkam lekkul dara bàyyi kenn. ci xibaar yu ñu jot wax nañu ne agression la yéen est-ce ngeen ci lu leen leer. ah moom lañu jàpp de ndax daal ki ko ki ko taxawu di ko woo ba mu dem boobu lañ ko mujjee dégg. boobu lañ ko mujjee gis ba ni bi ñu retrouvé kooram. mais ki xam nañ ko wala seen traçage. xamuñu ko de ndax moom téléphone xam nga téléphone c'est moom moo yor te moom day business day yëngu ci jaay danaan jëndi oto ba Mali ñu dawal ko mu ñëw kon xam nga ne kooku business la xam téléphone nag c'est personnel c'est privé li muy wax ak ay client ak jëndkatam ak jaaykatam moom moo ko xam nag wax dëgg yàlla xamaguñu. ki ñu doon waxal waaye xam nañ ne ki ko def lii ku ko xam la daf ko piège waaye su jàkkaarloo woon nag moom face à face balaa mu ko rey lu bari dina yëngu. léegi euh, ñu ngi koy yóbbu di ko denc boromam Touba fi mu ne famille bi lan la ñuy réclamer. justice daf rek. daal loolu la ñaan yàlla na ko yàlla nit balaa su ma sañoon tey duñu duñu tëdd te xamuñu ki ko rey su ma xamoon su ma sañoon tey balaa ñoo tëdd affaire bi leer. te yàlla na jaar fa mu war a jaar yàlla nañ ko teg liñ ko war a teg lan la ñuy ñaan ndax dafa moom dafa mel ni société la rey moom société la rey parce que li mu naan li mu naan def loolu macha allah yàlla bu ca jiitu ci bàmmeel yàlla na xippee ji àjjana su fekkee ne maa moom ñoo bokk bàyyi ma yor leen ba ñu nekk mag ku ne man li nga man ma doog laa teggi sama loxo bi ci moom yàlla na ko yàlla nit waaw jërëjëf merci beaucoup. alors yaay nan nga tudd. Fatou Gueye. yow lan nga ñu mën a wax ginnaaw magam bi nga xam ne wax na léegi ci Lobé. Lobé xanaa baax rek baax rek bëgg ñëpp sama taaw moo nekk di mooy sëy ci kër gi waaye Lobé dara def sax ci kii loo xam ne man mi jur mun ko sax duma ko yëg. wax mën a tànt a gi maa ko war a yor may sama sama mag sama rakk la ma bokk ndey lu jiitu li soog a ñëw kon nag lu ma def ci moom rek dama ko amut. doom ji daaw ba école ubbee da koo woo ñëw mu ko dugal sa doom ji école ndax taxawaay bi taxawaalu bëgguma ko dugal ko école mu koy jàngaloo lu nekk ci ñoom rek moo ko ci def sama doom ba ngi ni julli ren ji lu maanaam lu mu am lépp rek lobe lépp rek lobee ma di ko ñaanal yàlla ak yonte ba Sëñ Fàllu Mbàkke fee mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jóge yàlla na ko malaakam yërmande teeru barke sëñ lu Mbacké dem na lu baax ba xëyul suñu borom waaye nekku ci askan bi di def lu bon wala mu wax lu bon man de sant naa ko gërëm naa ko kenn ñàkku nag sama moo ñàkk waaye nag yàlla ko yàlla jox xolam muñ dama bëgg nag li mu taxaw woon ndeyam naka sama doom waa ndeyam ba ndeyam bu mu xalaat bu mu jooy bu mu ne bu sama doom doon taxaw nee ko na nekk tey jii nga nekk taawaat ci kër gi bu uuf ndeyam uuf ay rakkam ba fa mu tëdd mën faa tàlli loola laa koy sant yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko malaakam yéen mën a teeru ci barke sëñ Fallou Mbacke naqaral am nag ba mun noo wax li tax a naqare ba mun noo wax nag ki xam ne moo def jëf ji yàlla na ko suñu borom nit ci barke sëñ nga mujjee gis love xanaa samedi benn bi ñëwoon suñu koñ mu ñëwoon fa waaye ka bu ñëw moog awa gi mi noo ànd ak yaayam ak rakkam ban ba añ pare ma ne man de maa ngi dem Dakar dama jënd ay dàll fa tàggatoo ak ñun ba nii waaw waaye sama xol dafa tàng rek sama xol dafa mun na wax daal waaw. yaay ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. naka nga tudd. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek. noo tudd. Maguette Niang laa tudd. nga yaayam ñoo bokk ndey baay. ñu mën a wax ci moom. xanaa baax yaru bëgg ay mbokkam bëgg ay dëkkandoo yaayam loolu laa ci mën a wax xale bu am jom nangoo liggéey alalam du ko boole kenn loobe lu mu am bokk na ko mbokkam ak i dëkkandoom lekkul dara bàyyi kenn loolu laa ci moom wax dëgg yàlla ci naqari ni mu demee rek loolu mooy li ci metti waaw loolu mooy li ci metti dëgg yàlla. waxtaan nga moom ci bés yi mujj yi. gi woote na baalu àq ñu baalonte àq. ñu dugal audio na ngeen def yaay ñoo ngi fi julli ngeen ba pare man na ko waa julli nañ ci jàmm dimanche man dem naa ba di fi ñëw na dama amoon sama mag ju ma seet ko waaye naaj bi tàng ma ñibbi ma woo ko ne ko man de bëggoon naa faa jaar seet si magam na magam bu jigéen bi ci kër gi daa xaw feebar waaye naaj bi moo tàng moo tax mañ ba xam naa naa fu ñëw seet si jaara mu ne ma waaw yaay naaj bi daa tàng bàyyi ba am jot yow amoo jot lii lañ mujjee waxante ma ak moom. bu fàttee ba ngeen ko déggee yéen jaaxalu leen. digg bi metti na metti na man damay xëy di jaay ñu woo ma ne ma lobe fanaan siwul altine bi mu xëyee ma ni fanaan siwul bon de lobe jaamu teewu ko lobe mi ma xam musu fanaan àll tey nga woote yaayam woote na fanaan siwul ma daal di sama njaay jubal si bi may ñëw fii ba ci kalandoo yi lañ ma woo ne ma yaay lobe gis nañ ko de waaye fekk ñu rey ko moom de lañ ci am. yaayam ñuy wax ne dafa feebar moom xanaa sonn ak jaaxal ñu rek. jaaxal ñu rek ndax yaayam boobu ba tey wéru dëgg mu sonn ci yaayam lool hôpital bu ne mu yóbbu garab yi ne mu jënd ba démb rek bi mu naan garab yi muy naan sama rendez-vous jot na sama doom bi dem na ko may jëndal sama garab yi ah, si tudd tudd soxna nga bokk ak Ndeye ak Baye. waaw ah, yéen ñaar yéen a bokkoon di liggéey. waaw ñoo ngi liggéey. Hmm. instant yi ngeen mujjee partagé ci bés yi laata muy ñàkk bakkanam lu ngeen ko dundee. non moom xam nga place yi trois lañ léegi man maa nekk si benn bi moom moo nekk si biir suñu benn rakk bi nekk bi nekk jëm ñaajo ñu suba si duñ ànd xëy suñu wàccee la ñuy ànd parce que waaw man maa xëy njëkk xëy di ko fa bàyyi waaw moom xëy ñu journée xaw si woon dara. bañ wàccee ma koy xaar naan leen ana ma gis sama benn rak yore saak bi mu ko ana lawe moom lawe yendu fi de comme moom dafa bëgg jënd ay bagage maanaam sama xel dem si dafa jëndi bagage parce que laa jël kalando course ñëw ñibbi si si kër gi naw yaa anañu lawe dama lawe ñëwagul de ma ne ko ah kon dafa am naa dafa génn sama beneen mag mu ñëw dama woon mu ko ma man tam woo jot ko jotuma ko après bañ fayaatee man mu ne ma woowaatal ma ko ma gis ne lobe fanaan fi daal ci jour boobu ma gis ne fanaan moom la woowaatal ma woowaat ko waaw jëlul portable sax du sonné ay ay message la lay wax nga bàyyi ba du sonné mm, journée boobu loolu la nga yëg ne faatu na <laughs> dama xëyoon man dem sax dama fay si place lañ dama jig saa yeeg ñu ne moom tëjal place bi man place la bëggul place bi du tëju ma liggéey ma wàcc si kanam dinaa ñëw kër gi. wala ab ñu force ma insisté tëjal place bi na le temps may tëj place boobu maa ngi maa ngi woon en forme di waxtaan ak gars yi bañ na ma tëjal place bi nag sama yaram bañ si ma toog mënatu ma taxaw moom ma obligé toog noonu gars yi jàppoo ma. man leen mënutuma dara xaw ma lu xew Amed Ndiaye ñëw suñu benn rakk la moom moo nekk jam ñaajo mu ñëw toog man ko Amed Ndiaye lan la mu ne ma du dara tëjal nañ tëj rek dem ma gis bëtam man Amed Ndiaye waa ma lan la la moo xew lan la bi ñëw na mu ne waa ñëw na mu ngi kër ga tëjal la nga def le temps ñuy tëj sama benn mag di traversé ak oto bi ma ne ko ñoom ñoo ma jël si sax ñu leen nañ leen fekk fee station ba ñu sa station si laa yéeg may leen may sama bi lan la lu xew non dara nañ dem kër gi rek ma woon sama yaram bi dafa bañ la moo tax sama loxo yi bañ sama tànk yi mënul dara mu dee nañ dem rek fi ma dugg ñu dem si yoon yi bàyyi naan jërëjëf sëñ mu ma si mu ma siy waxal la ma gis ñëpp taxaw ma xel bi ñaaw daal ma tourné benn isa nee lan ngeen taxaw fii lu xew doon toog ngen taxaw nii ma dugg si kër gi nag sama benn jabar mag ku baax ah awa mu songuma na ma sala ñàkk nañ ma reetaan parce que man man émission bu ma tiiteeg lépp man reetaan laa koy def ma ree mu ne ko looy wax nii après si laa gis gars di jooy nag si sama yaay toog si laa xam nag ci lañu wax la bi dafa gaay mëntu ma téye sama bopp xaw nekk lu métti ndax kooku sama yaay la du sama mag sax gars yi bëri dañuy jaawale bu ñu duñu xàmmee saa nga wanuma kanam parce que maa gën loolu lañuy loolu mooy suñu différence ma nag moom ñoo tolloo ñoo bokk sol aussi. si liggéey bi. fekk tëye laa liggéey suñu benn mag liggéey man nag dama naan tëye bi dafa dafa dafa taayal daal man loolu laa doon wax gis naa ko moom ni muy dundee affaire yi. man téye daal dafa taayal ma créé fi ma ni ko su ma demee fee Sicap damay sonn du ma ñëw affaire yooyu noonu ma fexe ba mu dugal ma fa ma toogal am naa place bu muy waaye tijji après nga dem foofu ci laa bay téye bi toog xaar ko si la ma jël un jour ma place pare nañ dem si laa commencé xëy foofu nag place maa ko géré foofu noonu laa duggee si liggéey moom mu dugal kay. ci dernier instant yi waxtaan gen comme yeneen ànd di wàcc ak amul ay kàddu yu mu la dénk. gis nga loolu voilà. pour man man xëy na oh, non non man xëy na parce que man mooy yeewoo man dinaa ko gis sama portable si saabu saa dafa fa la ñuy tëdd. dernier moment su may génn la damay ubbi bunt bi jël sama portable xool ko mu xool mu nuyoo bi daal parce que duma ko déranger parce que si lay dem heure waat nag la ñuy desante wala mu bëgg daal si place bi ñëw jël si ko ku amul ku mu yónni mu ñëw loolu la ñuy desante waaw. sa kàddu gu mujj. Hmm. vocal bi mujj moom ku baax lañu yóbbu koo xamante si sama yaay la déglu ma dafa sori si man kër gi man rek man rek li fa mën communiquer lu naa li bëri maa xam si moom sama lépp la moo ma yar ànd te bëggee dégg moo ma yar moo ma yar jàngal ma métier bi ma nekk si dama ñàkk daal dama ñàkk mais di ñaan rek sëñ bi teeral na bu baax teeral na ko baax si si baak Cheikh bu baax a baax ku baax la ak sëñ Bamba taalibe yaay Fall dem sama idole la parce que man sama numéro sax numéro am loolu laa si bind ba gars yi dañ mel waane sama fu nga teg dafa kawaafee man léegi da la idole kontaan ni idole comprendre sama lépp di ñaan yàlla rek bilaay sëñ bi teeru ñu ko taal borom daaru la xaritu xaritu borom daaru la léppam billaahi di sant baatam na góora góora ba li amee ba léegi toogul lekkul naanu góora sonn na si trop parce que maa xam maa xam woo informé ko mu dagg liggéeyam ñëw ba si man di ànd ba tey ba yàlla def lii ñu trouvé solution bi nii la sama la vraiment sant naa leen bu baax di sant suñu yaay di sant suñu bàpp bu baax yéen tamit ñu leen sant bu baax wax dëgg fa ñaan li ngeen bëgg seen liggéey rek sëñ bi jàppale leen si baax Cheikh bi si baax Cheikh bi kontaan nañu bu baax